sàbbeeku bu ñu xàccee mu waatatu ci bu nu dëggalee ci jubalee ak di leeral ak yaatal ak di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 mokkal benn bayit boo xamante ni bii mi ngi nekk ci xasida Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bu tudd Mawaahibu Naafi' fii Madaahi Shaafi' bayit bi muy tudd xad fakka kabla xad bassa fadla fa durru walla wan nafahu jaa'i xad fakka dajeeku na kablan jéngi xad bassa sax na fadlan ngëneeli fa durru lor wala wéy na di dem wan nafu jaa yi waaye njariñ dikk na muy ñaan ñëpp mokkal ko moom nag moo xam la tax mu bëgg sénégalais yi mokkal ko ndax moo gis moo gis li nga xamante ne bii moo xew mooy xew kon nag na ci ñëpp gën a góorgóorlu maa ngi ñaan Sénégalais yëpp mokkal ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.